gis ngeen ko nii poto bii nii poto bi dafa nekk weñ donc fii lieu de passage la boo leen xoolee nii pratiquement virage la nekk donc gis ngeen ko donc mu nekk virage boo xamante ni nit ñi des fois dañuy jaar te dañuy jege poto bi xoolal yoon bi ak poto bi ni mu nekkee gis ngeen ko donc kii ci la ndaw si nga xamante ni moom la courant bi maasoon démb ndaw si lii photo bii la laal donc ñi nga xamante ni aussi tamit gis nga nag bi tey vendredi la donc ñi xam Bambey xam nañu ne daral moo fi am donc gis nga nag bii nii instant bii nii nii nii courant bi moo commencé ba mu dee gis ngeen ko nele donc mu nekk situation boo xamante ni ñu ngi koy interpeller autorités yi aussi tamit di ko wax autorité universitaire yi parce que gis nga fële na moom moo nekk seen euh, pavillon yi te bu école tijjee septembre fii la ñuy jaar pour dem restaurant bi nga xamante ni tey jóge ay Bambey ñu jóge fu ne oto yaa ngi nii gis nga Jakarta yi na ñëpp ñi nga xamante ni rek yoon la pour que gis ngeen ko donc mu nekk danger boo xamante ni daal ñu ngi ci interpeller toutes les autorités waaw xamal leen ne leen lii fi nekk nag bala benn jéye di ci am ah population bi avertir nañu ñëpp ñi war a wax wax nañu nag baa nga nële waaw nag baa nga nële kii ngeen gis ni donc gis ngeen ko kii mu ngi wax kii pour que mu jéem a xool nu muy moytoo poto bi mais il faut que quand même les autorités réagissent au gis nga ko donc plus rapidement possible ñu jug ci nekk loo xamante ni des koy kii ñu ngi koy wax autorités yi nga xamante ni ñooy autorité kilifa politique yi di ko wax ñi nga xamante ni ñoo nekk ci mairie bi gis ngeen ko gis ngeen ko donc lii gis ngeen ko donc c'est pas sûr amul lenn lu ci wóor maintenant balaa nekk di jéyee nag vraiment les riverains yi nga xamante ni ñoo fi dëkk ñoom fekke ñu li nga xamante ni des fois jéey yi nga xamante ni moo fi am donc encore une fois gis ngeen ko moo woon leen nag bi ki nga xamante ni pratiquement moo yoroon nag bi euh, donc ñu nit dañuy xaw a moytu rek gis ngeen ko gis ngeen ko nag baa ngi nii gis nga ni ko diree mu ko jëlee fee ci poto ba gis nga ko diri bi hmm? gis ngeen ko hmm? gis ngeen ko hmm? donc gis ngeen ko mais gis nga lii lii kii bi di def nii di wax moytu leen moytu leen xam nga doo xam li mënul nekk chaque jour nga taxaw fi naan moytu leen moytu leen donc plus rapidement possible muy Sénélec muy le maire muy le préfet Hmm? ñu ngi leen di demander à que ñu def ci saafara waaw c'est urgent du nekk loo xamante ni fii lieu de fréquentation la nit ñi dañu fiy jaar hmm? te poto bii munoo xam ndax day maas wala du maas te on en hivernage donc c'est un poteau électrique en fer il faut que vraiment ces autorités ñu réagir le plus rapidement possible nag bi mu ngi nii gis nga ko niñ ko xëccee mu ngi nii donc vous avez vous avez les traces comme ça gis nga ko vous avez les traces comme ça regardez hmm? donc gis ngeen ko mu ñëw ko fii la ko sànni hmm? donc pas bi daf ko projeté taxawal ñu am quelques témoignages li nga xamante ni moom mooy comme li ma leen doon wax parce que euh, boo ko xoolee ki gën a voisin bi gën a jege mu ngi nii këram moo nekk nii donc. Euh, moom ah, aussi conseiller municipal la euh, di lu ci bëri da ko fi fekk euh, mu tudd madam Ba euh, madam Ba yaa ngi en direct sur Bambey TV parce que nag dama ne sax tey moom lii nii comme ni nga ma yee ci suba si du loo xamante sax dama koy filmer di ko monter mais damay def direct Sénégal gépp seetaan ko en direct nga wax leen li nga xamante ni démb rek yaa ngi koy wax ci benn vidéo tey presque yàlla. def aussi tamit ñu yem ci mu nekk nag bii nga xamante ni ak borom jula bi ñu buggoon ci rek am ci sa sa sa réaction aousubillah mina sheytaani rajim euh, mooy li ma doon wax rek euh, Mamadou parce que démb gis nga démb vidéo bi ma def tey vendredi firle na ko vendredi nag yi ak nit ñi ñëpp ñoo fiy jaar ñun yuuxu bi moo ñu yeeyaat tey benn pël moo yuuxu ndeke boobu moom tam affaire bi maas na ko mais mi ngi yore woon yat moom dafa daanu mais jog na mais nagam bi moom dafa dee ci saasi loolu mooy wane na ba léegi maas bi may wax am na ci xam naa ñoom ñu koy xawee di comme démb ba léegi gisuma leen direction bu ne def naa ko gisuma kenn damaa bëgg nag tey ñu dimbali ma lii danger bu grave la ku ne moo fii jaar suñuy doom yi ñëpp xale xale xamul dara mm. surtout xale yi nga xam ne dañoo tàmm di kott poto yeeg yooyu mm. man boobu ba léegi maa ngi fi taxaw démb da fii laa yendoo taxaw di avertir xam nga loolu mun ma cee dëkk mun ma cee dëkk mm. nañu ñëw dimbali ma ci lu gën a gaaw lu gën a gaaw nañ ñëw dimbali ma ci seet nuñ koy defee waaw parce que fi mu ne nii tey la vendredi maa ngi taxaw moto bu ñëw ma ne la moytul ah? waaw oto bu ñëw ma ne la moytul nit bu ñëw ma ne la moytul waaw